ngi t u d a Henry Kojo Harris suma papa mu ngi tudda Kweku Kweku Harris Johannes Kweku Harris m o a y c h a t mu la gaa daan ooyee caat maa ngi dëkka Six Combo Street m o a y fii b a n j u Um, client yi fii basically moo nekk comme suñ néeg aussi because um, ñoom ñoo dee gën suñu mburu laa consider as suñ suñ number one client suñu néeg ak people around us raada price bi moom comme yëpp daf dem la nekk same waaye ñun ñu ngi jaay five dollars pour suñ normal bread bi sweet bi three dollars. waaye tamit du dee nekk comme si price day nekk comme si quantity mbuur bi ak quality bi comme lu We dee am si biir parce que da ngaa gis ne comme ñun suñ mbuur bi comme dañ fay def um, bota ak stuff like that waaye comme yeneen bread yi du dee am loolu comme just plain bread la ak stuff so product bi day nekk comme the main thing so prices yi mun naa nekk same waaye product bi ak lifin di the benn moo leen nekk difference inspired by that Euh, suma papa moom moo si dugal moom moo ñu daan groupe moo ñu train moo ñu jàngal moo ñu woon yoon bi ne comme day saabit douce comme nii lañ ko dee dafay waaw suma papa daal moo ñu si dugal parce moom tam si papaam la ko jàngee ku samp fóot affect na ko trop because nit yi dindee génn léegi that much ñu dee dina si mburu bi dindee dindee ñëw ut si mburu bi so loolu dafa nekk comme big problème ñu daan jaayee di nekk comme because duñ dee supply suñ supply tamit du nekk lu bari so jaay buñ dee jaay nit yi duñ dee génn si léegi so dafa over affect suñ business. gën a am um, naa ne years parce que bu nekkee xale bu ndaw maa ngi fàttaliku ma fi soo ne développement comme man gis naa ne comme Xariskunta war na ma waroon naa romba fii te waroon naa passé fii te um, waroon naa. ibigay ng branches dara man di suma 5 next 5 years man suma amoon suma fuuti boppa ibi more branches employ more youths moo doon nekk kaw man suma aim next 5 years there are different different types of bread waaye come dañ defar fresh sweet um dañ defar kwasa dañ defar snacks tamit waaye comme mainly suñ main moo nekk comme fresh bi ak sweet bi foofu leen dee gën a um, concentrate on cause foofu la suñ customer yi dañ dee on a suñ sweet ak so mais mainly sweet leen dee fresh um, maa ngi tànk sama customers yi mainly ba di leen wax thank you pour loolu ñëw pour woon nit yi comme the great job you're doing. But come right naa nung si pandemic, COVID-19, um, coronavirus, comme maa ngi wax um, nit yi ñu stay safe, stay home. Ba pare comme ñu raxas seen loxo yi frequently comme gis ngeen comme ni ñu ko dee defee um, stay home, stay safe.